bi lu ne lay jur mën naa jur xeex mën na jur rayante mën na jur lu ne ci frontières yi kon loolu lañ ne nañu xool loolu lan moo ko waral nan la ñuy def ba saafara leneen li mooy yéen xam ngeen ni ñi ngi jàpp ay jaam sunuy doom sunuy jarbaat sunuy rak di fekk sunuy doom ñu leen di violer ci àll bi di leen liggéeyloo te duñu leen fay ñu ni loolu it war nañ koo seet ndax lu nekk la nan la ñuy def ba loolu ñu faj ndax dem ak dikk wane nañ ne mënta ñàkk ndax gannaaw li ñuy wax boo ko seetee léegi mu jege junniy at dem ak dikk mi ngi doon am xam nañ ne loolu mënta ñàkk mais est-ce que nit ñi tey bi ñu demee ba vingt et unième siècle waruñu mën a dem ak dikk te kenn du leen jàpp kenn du leen jaay kenn du leen rey kenn du leen laaj xaalis ci fi nga xam ne lu loi def na ko kon loolu la ñu war a waxtaanee muy waxtaan wu rëy. ngoon gi da ngeen dellu si communication yu bëri da ngeen ko dégg.

ay parlement mais àddina bépp buñ ma joxé amna xelum yor ko ndax ci deug la ko yor ci djub la ko yor ci li nit ni première déclaration amna sant la presse presse bi wax dëgg ko ba ngi ci dox li ñu man lepp nañ continuer loolu liñ ba ko nit ñi mën koo jariñ. boobu fu mu toll nii am nga satisfaction tey bu fi yemoon neex man li ndaje <laughs> mi ma li ma waroon def def mooy xalaat ko wax li ma war a wax te li ma ci wax loolu laa gis ne buñ ko toppee tànk boobu ndam dana ci am. maa ngi sant nag Wally Seck bu baax ndax bi ma ko ko waxee dañu sunu mbir la dinaa ñëw dinaa bégal ña fa daje bu bu subaa ci reer bi dana bégle ndax suba am nañu diine fii.

plus ñi nga xam nous dañ daan def marche yoy foire ba lañuy dajé 10 heures dimanche 10 heures 30 ñu def une marche ba taxal biñu teunk